des choix euh, relatifs aux aux aux aux examens est-ce que yéen a ngi réfléchir ci problématique bi même au bac euh, le problème s'est posé un j'ai même vu des étrangers euh, des des des des gens de la sous-région dire que on a proposé aux élèves sénégalais une épreuve en mathématiques vraiment insur insurmontable. Oui, euh, je pense que le système est toujours à améliorer hein, euh, et je m'intéresse beaucoup à ces remarques-là, ces observations. Euh, euh, dinañ ci bàyyi xel dinañ ci bàyyi xel donc euh, mu nekk yoo xam ni qui sont plus en phase avec xale bi lu mu jàng mais plus en phase aussi ak société bi li mu soxla mesuré et là dam ko d'ailleurs ci suñuy réforme ci la bokk mooy xool système d'évaluation yi damay faral di wax ni li ngay li ngay natt dafay fekk ni moom moo gën a am solo ci li nga bëgg xale bi euh, mën ak xam maanaam su dee citoyenneté dafa am solo euh, su dee mathématique dafa am solo su dee euh, environnement dafa am solo ci ni nga koy évaluer ci ni nga koy nattee war na mën a. fekk mu nekk des évaluations accessibles. moom moom la xam nga c'est c'est à améliorer c'est vraiment. mais nan ngeen tëggee pour nan ngeen di defee choix bi. Euh, bul fàtte ni tamit maa ngi doog ñëw de <laughs> bul fàtte ni maa ngi doog ñëw. Euh, mais mais mais fekkee nga ñu examen yëpp. Euh, waaw bokk naa ci franchement dama leen di féliciter nag dama leen di féliciter franchement c'est impressionnant may mun a enseignants yi seen liggéey les IA les IF c'est impressionnant la rigueur le process. mais c'est d'une technicité extraordinaire euh, pour que lépp jaar yoon dans le plus petit village c'est c'est impressionnant imaginez en fait euh, liggéey boo xam ni euh, ces acteurs la ces fonctionnaires ñu ngi koy abattre maintenant c'est à améliorer encore une fois mais le système bu ñu fekk moo baaxul système bi je lis même pas un régime ou autre mais je le lis simplement. de manière générale de manière générale. Voilà. c'est vraiment euh, à partir des donc, années d'ajustement structurel. jusqu'à nos euh, loo xam ni sa langue euh, da nga ko teg ci ginnaaw euh, jiital français bi anglais bi nga teg ko et cetera ci ginnaaw adduna di doxee nenn le numérique nga teg ko ci ginnaaw ngay bëgg du civisme nga bëgg benn comportement yenn jikko yi. te dugaloo ko ci nga fonk sa diine diine bi présent wu ci donc y' a y' a vraiment un, non-sens total ak suñu système et c' pour ça que d'ailleurs on est surpris da ngay jur sa doom yóbbu ko école jékki-jékki mu nekk beneen nit et la société tout le monde dit ben je ne reconnais plus cette société là donc ces réformes là euh, président de la République euh, ku ko suivre ak euh, le, le le premier ministre et le gouvernement mooy il y a une rupture à opérer extrêmement profonde un donc des programmes de formation et très rapidement moo tax euh, ci rentrée bi déjà am na ay réformes assez importante yoo xam ne bëgg nañ ko entreprendre et qui von dans ce sens. Euh, le choix des épreuves. ci la bokk naturellement ci la ci la bokk et puis même sooy xool euh, durée wu xale bi li muy jàng des fois am na yu bëri ñu war a war a war a xoolaat mooy li muy def ci élémentaire bi li muy def euh, préscolaire bi ni ñu ko non rapport au préscolaire dëkk bu normal. dëkk bu normal préscolaire ngay gën a garantir mooy foofu 100 pour cent état mooy. mooy assurer base moom mooy assurer base bi mais fii sooy xool taux de scolarisation mais on est à 19 pour cent pour le préscolaire nga dem euh, ci ay moyens euh, secondaires on est donc à des taux beaucoup plus élevés donc donc c'est un non-sens il faut inverser cela introduire donc ces langues la Euh, nationale depuis le préscolaire introduire le bilinguisme c'était une discussion boo xam ni. en tout cas c'est en cours dans les écoles privées. justement mais mais là ça va être lancé là là. dans euh, le public dans le public à partir du mois d'octobre incha allah donc on va euh, ça c'est une instruction ferme boo xam ne président tamit daf ko joxe waxoon na ko ci projet mooy il faut absolument introduire donc bilinguisme boobu donc c'est un bilinguisme boo xam ni ci préscolaire maintenant. discussion bi ñu amoon la fois dernière c'était commencé ko au niveau élémentaire ou préscolaire mais man suma option ak ñu bëri beaucoup d'acteurs mooy ñu introduire ko au niveau donc du préscolaire et là nous devons nous retrouver donc dans une semaine pour que décision bi rapidement